ci biir loolu it defoon nañ ay waxtaan ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ab tënk ci ak gàttal waaye bi ñu ko gàttalee ginnaaw bi gis nañu itteel gu dundub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itteel nit ñi ba tax na damaa xalaatoon ni bu ma ko mënoon a gën a yaatal eh, bañ koo tënk mooy gën ndax yonent bi sax dundam wala su ko tënk ndax ci moom rek la ñu sukkandiku waaye ci biir loolu lépp it nag itte yu bari yi di ma gàllankoor ba taxaw sax gëstu ko def ko xaw na maa të kon bu ñëwee sàkku bëgg-bëgg boobee ci man loolu war naa leen ci delloo njukkal ak cant dëgg la sax euh, lu ma def def gëstu ak lu ma ko yaatal yaatal rek dundub yonente bi dafay géej te géej moom suñ ñëwee def ci suñ kàttan gépp it lu soree ku yoroon askoom ñëw di tànk kon lu nu mën a leeral ci dundu yonent bi noonu rek laa ko jàppe kon xanaa dañu ci leeral lu toll ni li jàppandi ci noonu lu toll ni li teew di ñaan yàlla mu doon njariñ lu yaatu ci mundu islamique bépp rawatina ci yoonu Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu xatug waxtu bi nag ak xat-xati jamono tax na lu bari ci ay war-war yu war doomu aadama bi mënu koo def li doon ay warteef ci moom sax du ko mën waxuma la nag di ca dolli leneen loo xam ni ay mustahabaat lañ koy jàpp waaye nag bi may nattable ak naan tay ak ëllëg suba ngoon ba waa daara yi xisbu tarqiya ñëw sàkku ñu taxawaay taxawaay boobu loolu ak cant la sama diggante ak ñoom leen ci sant bu baax euh, fas ko yéene nag fas ko yéene mottali euh, di ci ñaa nit ndimbalul yàlla di ci sàkku ngërëm di ci sàkku ngërëmul Sëriñ Tuubaa mi nga xam ni lu ñu yëngutul ne rek liggéeyal ko ak sàkku ngërëmam moo tax di ci yëngutu yàlla moom rek ay buur benn buur la mu tànn ay yonent daan leen yónni ñu yëgle nguur boobu nguur yàlla ko di ko leeral ak di leeral nit ñi yëg ni yàlla benn buur la bopp moom lañu war a jaam waruñu ko bokkaale ak kenn yonente yooyu nag dafa dem ba mottulee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi taxaw akuk farloom ak i coonaam ci jubal mbindeef yi di jihaad ak ñi wedd yàlla ba jantub ngëm fenk ci àdduna bépp leeruk alxuraan yi tasaaroo fépp ñi dëkki ci dëkki taax yi ak dëkki àll yi ñëpp di leerlu ci leer googu ba bëgg-bëggub yàlla leer nañ ci kanamu nit ak jinne lépp ci kaw taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ñu tànn ci bani àddina bi ñu xamee nag ni nit ab jaam mënta am ak taxe mukk muy tay ba ëllëg mënta amit ak muc muy tay wala ëllëg ci lu dul topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni man allah wax na ne wa man yutii illaha yudxilhu jannatin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha wa dalika al fawzu al azim dellu wax ne wa man yaasi llaha wa rasulahu wa yataadda xududahu nudxilhu naaran xaalidan fiha wa lahu adaabun muhin kon loolu danañ ci dégg ni ku topp yàlla akub yenentem danañ ko tàbbal aljanna te loolu mooy taxe gi gën a mag ci taxe ku mooy yàlla ak yonente bi jéggi frontière yàlla ak yonente bi danañ la tàbbal a nga sax fa ànd ak mbugal mu doyati topp yàlla ak yonente bi kon mooy texeg nit ki ci àdduna ak alaxira mooy muccug nit ki ci àdduna ak alaxira yàlla dafa bind doomu aadama bi ngir mu jaamu ko ni mu waxee ni wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun te jaamu yàlla mi ngi amee ci topp yàlla topp ab yenentam ak jaamu yàlla mooy lu war ci alquran mbaa ci sunna mbaa mu doon lu ñu sopp ci alquran mbaa ci sunna waaye lu dul loolu ak réer lekk rek lay tekki loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wax ni képp ku jëf-jëf joo xam ne dara sunu mbir nekku ca jëf joojee donte ak jaamu yàlla nga ci jublu danañ la ko delloo yàlla du ko ittewoo waxaat ci xadiisu ku ñuy wax Irbaad ibnu Saariya radiallahu anhu mu wax yonte def na waar waaraate woowu sunuy xol jàq na ci sunuy bët sotti ci ay rankoñ ñu ni ko yonente bi dafa mel ni sa waxtaan wii di waxtaanu kuy tàggoo la dañu bëgg nga dénk nu mu ne nu dénk naa leen dégg ndigal ak topp ak ku leen mën a jiite daal wax ni ku ci dund ci yéen dana gis ay juyoo yu bari waaye nag bu boobaa dénk naa leen sama sunna ak sunna xulafaa rashidun ñi ma wóotu na ngeen ko téye bu dëgër delluwaat wax ci beneen xadis ni wax ji gën ci wax ji mooy wax yàlla ngeen ji gën ci njub gi gën ci njub yi mooy njubug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni it li yées ci mbir yi mooy yañu sos te mooy ay biddaa daal di wax ni lépp lu ñu sos rek biddaa la te biddaa ak réer lay tekki réer gu ci sawara la jëm biñ bëggee nag topp su si yonante bi ak i jaar-jaaram ak sunna saxaaba yooyu mu wax ak seeni jaar-jaar loolu yi mooy itteel gu siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ab jullit kon ci biir loolu lañuy gëstu fekk nañ boroom xam-xam ñu gëstu woon ci gëstu yu baree bare juddu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan nañ ci waxtaan ci aw askanam ak ay turam fam jaaroon nam doon nampe ak faatu way juram wu jigéen yar gu ko maamama Abdul Muttalib doon yar mu jóge fa jaar ci baayam bu ndaw muy Abu Talib mu yar ko tukki ba mu tukki woon Saam fekke gum fekke woon xarbul fijaar ak fekke gum fekke lu ñuy wax xelful fadul ak na mu daan doxe jëkk nëbbuwoo gi di ñëw ci moom ak na mu dence soxna Xadija ak gu guñ ko doon atteloo moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca ba ñuy tabax kaaba gi ak la mu daan liggéey jëkk nubuwa gi di ñëw li lépp ay point la yoo xam ne bu ñu ko seetee mat na fukki point ak ñeent yooyu euh, danañ ko gàttal leen lu ci ñu jaar ci bu defee euh, ak dégg ngeen cay am ndax lu ci dana dafa am lu tax mu wax ko kon askanu yonente bi sallallahu alayhi wa ak ci turam mooy kan mooy muhammad ibnu abdillah ibnu abdil muttalib abdul muttalib moom di doomi ku ñu wax haashim Hashim di doomi ku ñuy wax Abdu Manaf ibnu Qusay ibnu Kilaab bun Murra ibnu Kaab ibnu Luay ibnu Xaalib bun Fihr ibnu Malik ibnu Nadar bun Kinaana ibnu Xuzayma ibnu Mudrika ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Maad ibnu Adnaan ibnu Udad yonte bi moo daan def bu masaan lim ba agsi foofu yi da daan wax ni ba kadaba nasaabuuna askanekat yi nag fen nañu kon ñu xam ni léegi ñu xamee ci ni kon li tàmbulee ci yonente bi ba ci ñaar fukki maam boobu ak benn loolu moom ku ko nett li nett li nga lu wér waaye nag jàll gi moo du am sukkandiku waaye bu leer moo tax ñu yem foofu ndeyam di aminatu bintu wahb amina bintu wahb moomu wahbu ibna abd manaaf bun zahra ibn hakim mooy juróomeelu maamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonente bi maamam ay tànneef lañu woon ci tànneefi arab yi lañ mas a bokk yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ku bari ay tur la yeneen tur yu bokkut ak muhammad ndax ahmad ci la annabi rasulullah almaaxi wal aaqib wal muqaffa wa nabiyu rahma nabiyu tawba nabiyu malhama alfatih wa taaha wa yaasin wal mustafa wal rasulu wal nabiyu al umiy wal xaashir am na yeneen tur yu dul yooyu ndax am na ñu koy lim ba ci ñaar seen tur téere boobu ñuy wax muqaddamatul xidma sëriñ bi tudd na ci lu bari ci turi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne ku ko doon wàññi euh, war naa mën a àgg ci limu ñaar téeméer juddug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy euh, tombub ñaareel bi Abdullahi mi doonoon way juru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokkoon ci ñi baayam gënoon a fonk muy Abdul Muttalib da ko soppoon lool dencal ko Amina bintu Wahab Amina bintu Wahab moom mu ko dencal mi ngi bokk ci ñi gën a tedd ci néegi Qurayshi ni bi ko ko dencalee mu ëmb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ginnaaw bu mu ko ëmbee diir bu gàtt la am Abdullahi génnoon di defi am commerce ca Yasriba foofee fa la faatoo ñu denc ko fa moom Abdullah foofa la ay nijaayam dëkk ci Bani Adi ibnu Najjar jamono yooyu moom Abdullahi mi bàyyi yonante bi mi ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom kon yonante bi bi mu nekkee ci biirum ndeyam la baayam faatu baayam bi muy faatu mu ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom ñu denc ko foofee ca Yasriba te Yasriba mooy fii ñuy tuddee madinatu rasul sallallahu alayhi wa sallam bim demee ba ëmb bi mat mu jur jëmm ju tedd jooji mi ngi judd ci bisub altine tolloo ak fukki fan ak ñaar ci weeru rabi'al awwal ci at mi ñuy wax atum ñaye amul fiil atum ñaye nag dafa doon xew-xew bu siiw bu amoon solo ci arab yi moo tax ñu di ci taarix ndax dañuy wax ni abraha dafa doonoon liggéeykat bopp buur bi dëkk Éthiopie moo ko tegoon yaman di ko fa liggéey loo mu doon fa jaraaf di ko fa nekkal moom dafa amoon xalaatu ni danaa tabax benn église boo xam ni église boobu bala maa bàyyi aj gi arab yi aji ca Kaaba ga danaa ko wëlbati indi ko foofu ci église boobu ngir di sàkku ngërëmul kilifaam ko gi ca Éthiopie bi mu tabaxee église bi nag ba bàyyi fekk am na ci arab yi ku déggoon kàddu googu mu wax loola naqari ko ak donte sax boobu diini islam ji ak seegul waaye Makka ak Kaaba gi eh, lu arab yi war maa loon la lu ñu fonk la naka jëkk bi mu déggee kàddu googu yi ko wax ni ko danaa la tabaxal église bopp bala maa bàyyi dama soppi ajug arab yi mu jëm si fi eh, bi ko arab boobu déggee loolu moo ko naqari bi église bi àggee bañ defar ko ba mu rafet mu dem taqal fa ay taq-taq am na ñu wax ni dafaa dem eh, dox fa aajo ci guddi ci heure guddi biñ xëyee Abraha laaj ni ku def lii ñu ne ko kenn ci waa diine kaaba gi nga waxoon ni da nga soppi aju kaaba gi andi eh, ko ci sa église bi kenn ci ñooñu moo dégg li nga waxoon mu naqari ko moo tax mu ñëw def fi lii Abraha daal di ci gën a am lu ko naqari ni kon bala maa bàyyi sax jëmmee Kaaba ga laay maa bu fa toj ko mu jeex ci loolu ci la jëlee ab arme bu mag arme boobu nag eh, dañoo wax ni ay ñay lañ daan fab muy jiitu ci kanamu armo bi xaj na sax eh, ngir tiitloo nit ñi ko xamul lañ ci daan jublu xaj ñoom tàggatoon nañu yow salaam mu jóg ñëw gis ci Abraha ndax dafa mel ni ñëw gim ñëw ba jege màkka jàpp jër ga du wëtt gépp rek lim ci jublu mooy tappaas leen ngir mën a dekk déclarer guerre digganteem ak ñoom Abdul Muttalib ba mu ñëwee wax nañu ne bi ko Abraha gisee am na war ma jum ko jum ko jox lool buur la nguur gi nanguwul mu di ko teg ci kaw lal bi ñuy bokk lal waaye war ma jum am ci moom it mayu ko muy toog ci suuf ba tax na dafa wàcc toog ak moom ci suuf daal di koy laaj ni ko lu donoon sa itte Abdul Muttalib tontu woon ni ko dangaa jàpp ak jur fii te jàppaale ci sama jur moom laa ñëw ngir li ci sàkku ndimbal ci nga delloo ma ko nee na Abraha wax entrepreneur bi doxoon seen diggante ni ko nee ko bi ma koy door a gis am na fu ma ko tegoon ci war ma waaye nee ko war ma jooju dañ na ba mu ko waxee Abdul Mutalib Abdul Mutalib ni ko ana lu ko waral mu ne ko nee ko damaa jóg ngir màbbu si néeg boo xam ni ay baayam ak i maamam moom la ñu gëm ma jàppoon ni bu ñëwee ci loolu la may wax moo koy gën a itteel waaye ñëw gi ñëw di ma wax ci mbirum ak jur gu ma jàpp ci la darajaam waaye fe ci man nee na Abdul Mutalib nee leen ko jur gi sama jura man maa ko war a lijjanti bu dee néeg bii mu jóg ni daf koy màbbu si nag dafa am borom bu koy aar bu dul man bi mu waxee loolu Abraha ah, dafa am beneen borom bu koy aar mu ne ko waaw mu ne ko baax rek kooku koy xaar daal koy delloo ak juróom ni ko maa ngi ko fi xaar ba xam dana ko mën a aar wala déet ci biir loolu bi ko delloo ak juróom ginnaaw bi la jóg nag jëm ca Kaaba ga yàlla yabal lu mel ni ay picc yoo xam ne dañoo bokk ay xeer ñu ñëw tiim leen di leen ko sànni di leen ko sànni mu doon loo xamante ni da leen a jaaxal lool ba di arme ba daal di tasaaroo ñu dëpp ñenn ñi dañoo daanu dee ci diggante bi ñenn ñi am ay jafe-jafe yu bare bari léegi at moom mii nag la ñuy tuddee atum ñay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci at moom yi la gane àdduna moo tax alquran di wax ne alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam yajcal kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi xijaratin min sijjil fa jacalahum ka asfin maakul sarwo wi ci abrahama mi rawat at moomu la ñuy tuddee atum ñay yi ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam judd mu mel ni xarbaax googu yàlla daf ko def ngir terale ko yonente bi sallallahu alayhi wa ak wane ni lu lu rëy ku rëy mi ngi bëgg a feeñ ci jamono ku ñuy wax Mahmoud ku amoon xam-xamu fëlëg nattale na xaamul fiil atum ñay nattale na ko ba gis ni mi ngi tolloog ñaar fukki fan ci weeru Nisan te muy avril ci 571 ci juddu juddug Isa wax na ne ñaar fukki fan ci weeru avril ci atum juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ci ay saa mooy tolloog juddug yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon fi jant bi fenk ci guddi fukki fan ak ñaar ci weeru Rabiul Awwal ci penk teg fajar fi fajar di fenke foofu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gënee àdduna mu gënee àdduna Amina daal di yónni ndaw ci maamam Abdul Muttalib yëgal ko ko Abdul Muttalib ñëw ànd ak mbégte tuddee ko Muhammad mu mel ni yàlla moo ko ilham yenkiwal ko tur woowu muy Muhammad waaye tur woowu doonul wu siiwoon sax ci arab yi jëkk tur jëkk Muhammad jëkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nag ñu ko tuddoon waaye ñu néew lañu yaakaar danañ ci wàññi ay ñetti nit ñoo xam ne Muhammad lañ tuddoon jëkk yonent bi ba laaj nañ sax mu euh, Abdul Muttalib moom ni ko waaw ana lu tax tur yi fi sa bàyyi ak sa maam yi bàyyi woon lu tax nga bàyyi ko fi di ko tuddee tur bi mu ni damaa bëgg mu doon ku ñuy sant ci ci ci suuf sëpp bëgg ak cantam daj suuf sëpp moo tax ma tudde ko kon turu gaat nga la Muhammad mooy ku sant sante mu ni léegi gaat nga boobu laa ci jublu ana num nàmpe woon moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa bokkoon ci aaday arab yi ñuy wuti ay nàmpalukaay ci dëkki àll yi dañ daan wax ni xale bi bu mu nàmpee ci dëkkub àll ci la aw yaramam di gën a dëgëre ci la am xelam di gën a ñawe daan wax ni dëkki taax yi dafay gàttal am xel loolu lu ñu gëmoon danaka jekk moo tax gone gu masaan juddu dañ koy yóbbu ci àll yi ngir wuti ay nàmpukat yu ko nàmpal ñu daan nàmpal loolu moo doonoon seen aada yóbbu ci bàddeem ka ko jëkk nàmpal suway ba lañ ko daan wax suway ba moom nag nàmpal na ko diir bu gàtt ginnaaw bi eh, ku ñu wax xalima bintu abi zoaib as-saadiya xalimatu saadiya door cee jot nàmpal ko bi mu jot dafa fekkoon mu doon ak faqiir doonoon ku ñàkk man doon ku ñàkk alal moom xalimatu saadiya moom yi waaye ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diir ba mu fa am jur gi mu amoon dafa daal di bari am soow lool sàmmkaay yañ daan sàmme it daal di dolliku naataange lool xéwal yu baree bare bari fekk ko ci biir nàmpal googu mu doon nàmpal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag yor na ko euh, ba mu ci juróomi at bi mu ci juróomi at nag la ko delloo yaayam ba ku ko delloo yaayam fekk yaayam amoon na benn jëbër bu ñu daan wax ummu ayman jëbër boobu mi ngi ko donne woon ci Abdullahi bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ummu ayman moomu la ko la dénk mu di ko yar mu daan ko ko yaral moom xam-xam it tasawuf wax ni dañuy wax ni li ci bokk na ci isaaraat yi feeñ ci ci ci mbiru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon ay tegtal yu yéene muy Abdullahi mi doon bàyyam rek. dafa tegtale tawxiid dalilu tawxiid la yaayam aminatu la tudd mel na ni tegtalu amaan la li ummatihi maanaam eh, kóoluteegu xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di am kóolute ci àdduna ak alaxira léegi tudd aminatu boobu tegtale na ko suway ba mi ko jëkk nàmpalit eh, junjub as sawaab te ab yool feeñ na ci xalimatu saadiya mi ko nàmpalaat ginnaaw bi it alxilmu wa saadi feeñ ci te mooy ak lewet akuk taxe ki ko daan yar ñu di ko wax ummu ayman baraka alxabashi baraka la tuddoon ummu ayman aw daakental la mi ngi dëkkoon Éthiopie barke feeñ ci yumnu al yumnu wal baraka feeñ na ci kon lépp ishaaraat yëpp kim maanaam xeetu xam baax la yu feeñ ci turu baayam ak turu yaayam ak turu ka ku jëkk nàmpal ñu di ko wax suway ba turu ki ko nàmpalaat ginnaaw bi ñu ko xalimatu saadiya ak turu ko doon yar muy ummu ayman al habashiya baraka bim amee juróom benni at moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la yaayam ànd moom dem Yasriba di seeti ay nijaayam ndax Yasriba googu fa la cosaano Yasriba kon muy Madina léegi ñu wax ne bi yonent bi tollee ci juróom benn atam ci la yaayam ànd ak moom dem Yasriba ngir bëgg mu seeti ay mbokkam moom tam mu mën a siyaare jiwaale xabru borom këram boobu noppalu woon mu muy Abdullahi ndax foofu lañ ko denc bu mu ànd dem ànd ak ummu ayman ko ko nga xam ne mu daan téye topp ci seen ginnaaw bañ nekkee Madina am nañ fa lu mat weer bañ fa jógee di dellu Màkka ci yoon wi ci diggante Màkka ak Madina ci la wéradee moom soxna si moom yaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci béréb bu tudd bu ñuy wax al abwa abwa googu ci la ko wéradi gi dikkale eh, daal di metti mu amub diir daal di noppalu bi mu faatoo yi lañ ko denc kon yaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ko denc ci béréb bu ñuy wax al abwa ci diggante Màkka ak Madina ndax bi yonente bi amee juróom benn at mu di ko yóbbu ci ay mbokkam ak bëgg siyaare jawaari barab boobee bi la ko tawat jooju daaneel mu daal di faatu ñu denc ko ci diggante bi muy birab boobu ñuy wax al abwa umu ayman daal di dellu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa delloo ko màkk dañ ko delloo màkk nag kon euh, mu nekk ci loxol maamam abdul muttalib mu am ci moom yërmaane ju kawe joo xam ne ma seesu maanaam doomam yem daan yar mënuñu woon yërmaane moom waaye moom am na nu mu fonkee yonent bi ba wax nañ sax ni buñ masaan dalal Abdul Muttalib la taay googu yonte bu ñëwee ci digg ba lay toog buñ ko te doom yi kenn ci mës a ñeme lu mel noonu daan toog ci wetu laytaal waaye buñ ko bëggee yëkkati leen di wax ni leen bàyyee leen ko ndax sama doom ji mbir mu mag a ngi ci moom loolu Abdul Muttalib daana ko wax waaye nag euh, dir bu gàtt la am ak moom ci yar boobu daal di faatu moom tam bi mu faatu moom Abdul Muttalib kon yar bi toxu ci baayam bu ndaw bi wax Abu Talib Abu Talib moo baayu yonent bi ñoo bokk ndey ak baay shaqiqan léegi moo jural Sayyiduna Aliyun karamallahu wajhahu léegi ginnaaw bu yar bi tuxoo ci Abu Talib moom yi la dem kon Abdul Muttalib yar na ko ñaari at waaye ñaari at rek la dem ci Abu Talib Abu Talib fonk ko lool di teg ci wetam ñooy bokk fu ñuy tëdd laltaay gi ñuy tëdd ci peggam la koy tëral mu doonoon ko amuk doylu doon sax misaal ci ak doylu moom yonent bi sam doylu lool sori lool it jikko yu sew yi gone yi daan dund ci jamono yi gone yi liñ aada boo woon def ci ay jikko yu sew naka jëkk def ko sori kenn mosu ko ko xamel waaye njëriñ googu mu nekkoon nag am na jeexit ju bàyyi ci moom li ko maamam ak baayam di fonk-fonk Euh, yëg na ak jërim yëg na ko ci xelam xëy loolu moo tax alxuraan di wax ak moom yàlla di wax ak moom ci alxuraan ni ko alam yi jëdd ka yatiman fa aawa ndax fekku la nga doon ab jërim mu féetewal la boppam tukki bi mu tukki woon dem saam yonente bi bi mu demee ba toll ci fukki at ak ñaar bàyyam bu ndaw boobu di Abu Talib bëggoon na tukki dem saam saam nag yaakaar naa jamono bi ñu toll mook euh, mooy Syrie mooy ci booru Syrie la booru digg yëpp saam lañ ko daan euh, mu doon dem saam ci tukki commerce commerce bu mu doon defi waaye taqoogu yonente bi taqoog moom ak ñàkk ñàkk gum ko ma a ñàkk ma a muñ moo tax mu ànd moom yóbbaale ko saam bañ demee saam ba wàcc fa ñuy wàcc ñoom jëgg bépp jëgg bu commerçant yi ci jógee màkk yëpp bañ wàccee fa ñuy am na benn laabe bu ñu daan wax Buhayra ab euh, nasaraan la woon nag waaye dafa ñëwoon ci gox yooyu ñëw xool si jëgg bi bi mu leen di xool gisaale ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu gis ci mboolem mandarga yi nubuwa yi mu jàngoon ci téere yam jàng mandarga yi nubuwa yëpp gis na ko ci yonente bi sallallahu alayhi mu daal di dénk bàyyam bu ndaw boobu ne ko nag kii ma gis nii euh, na nga ko moytul yahood yi ndax gis naa ci moom mandarga yoo xam ne te yahud yi ñoo am ak kañaan lañ bu ñu ko gisee nii ma ko gisee mën nañoo def ay pexe ngir rey ko kon na nga leen moytu ak moom mu daal di gaaw dëpp ànd ak yonente bi delluwaat mag bokk na ci li sabab gaaw gaa dëpp sax muy loolu ko labbe boobu wax yonente bi fekk na xare bu ñuy wax xarbul fijaar ak xilful fudul xarbul fijaar bi yonente bi amee ñaar fukki at la fekke xare boobu muy ab xare bu doxoon diggante Xuraysin ak ña ko jàppale ak geneen giir gu ñuy wax xays ak ña ko jàppale mu doon xare bu metti bu xewoon ci eh, diggante Makka ak Taif eh, ci béréb bu ñuy wax Naxla fa boobu xewoon mu doon xare bu tar ñu xotti ci lu bari ci ormay Makka ndax Makka dafa doon dëkk boobu dañu ko warmaal war ma ju toll nii kenn du fa bëgguñ fa kenn du fa rey rey kenn kenn du fa faat bakkan duñ fa dagg ak garab ba ci aw teeñ sax dañu ko fay moytoo rey ngir warmaal guñ warmaal béréb boobu xotti guñu xotti nag orme yi béréb boobu xeex fa ba tuur fa ay deret moo tax ñu tuddee guerre boobu xarbul fijaar ginaaw bi mi ngi dañoo mujj yéwénoo ci seen diggante ba xare bi jeex ginnaaw bu xare boobu jeexee nag la mbooleem kilifay xuraysin yi woote ci pénc waxtaan def lu mel ni assemblée nationale ni léegi daal dañu bëgg màkk gii képp ku fi duggati moo xam ci waa dëkk bi nga bokk moo xam ab jaambur nga ak foo mën a bàyyi ko képp ku la fi tooñ na nan takkutoo nun ñëpp topp la ba tooñaa ngi joojee ngi delloo ko borom ñu waxtaanee ko ñu daal léegi kuñ fi mën a tooñee ci biir màkk rek na ñëpp takkutoo jàppale kooke ñu tooñ moo xam ku dëkk ci dëkk bi la wala ku fi dëkkul la loolu yi moo tax moom la ñuy tuddee xilful fudur moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni màkka di fekk naa fa ca kër Abdullahi ibnu Judaa ak ak benno ak lonko goo xam ni buñ ma ko bëggoon a jaayee jur yu xonq yi te muy ay gilem mbooloom gilem jëralu ma ko maanaam buñ ma bëggoon a jox mbooloom gilem ngir weccee ma ko lonko googee ma gisoon du ma ci ànd du ma ko d'accord léegi lonko gee moom ma koy gënal ndax dëgg gum jaar ci dëgg daal di wax lonko googee day buñ ma ci wooyo woowoon ci islam sax danaa nangu ndax dafa mel ni dafa dëppoo ak dini ji ko yàlla teral leen mu di ko woote mooy ni biir màkk gii nañ fexe ba ku ñu fi tooñate ak koo mën a doon ak foo mën a dëkk ñun ñëpp nanu takkutoo jàppale la yow mi ñu tooñ ba ba ñuy fab sa tooñaa ngi delloo la ko yonente bi nii fekk naa fi lonko nga xam ne buñ ma ci wooyo woon ci islam sax danaa ci d'accord dox yéen wi mu daan dox jëkk nubuwa gi di ñëw yonente bi dafa doonoon ku rafet jikko wala boog ñu ni mooy ki gënoon a rafet jikko ci ay mbokk yonente bi moo leen ëppoon ak dëggal ku amoon ak dëggal yonente bi ku amoon kóolute la yonente bi ku sori woon ay ñaawteef la yonente bi ku sori woon jikko yuy tëreel nit ñi jikko yuy tëreel nit ju rek eh, daf ko sori woon ba ay nitam tudde woon ko al amin ku ñu ngir li yàlla dajale ci moom ci ay jikko yu rafet moo tax ñu tuddee ko al amin muy ku ñu wóolu yàlla wattu woon na yonent bi jëkk nu boo gi di ñëw ci mboolem jikko yu saw yi ko bañ la woon lool jaamu xiram ak la ca benn jataay wala genn feet guñ ma sa feetal ay xiram mu teewe ko amut mu sa teewe benn ci bi muy nettali ak ngoneem di wax ni musumaa ittewoo dara ci li ci li jaaxil yi ittewoo musuma ci ittewoo dara lu ndare ñaar yoon te lu ci ne yàlla dama dox dafa dox sama diggante ak moom daal ni benn yoon dama doon sàmm ak jur ci peggu màkka ba guddi jot ma wax ki ma àndaloon ci sàmm ni ko ba ma mënoon a sama jur ma man dugg biir màkka euh, seetaan yi la sama moromi gone yi seetaan daal léegi dana baax nee na kooku ne ma bisimilah daal mooy téyel sama jur ba ma demee dégg ndënd mu ñu tëgg ma laaj la mu musuma ci ittiwoo dara lu ndare ñaar yoon te lu ci ne yàlla dama dox dafa dox sama diggante ak moom daal ni benn yoon dama doon sàmm ak jur ci peggu màkka ba guddi jot ma wax ki ma àndaloon di sàmm ni ko ba ma mënoon a xoolal sama jur ma man dugg biir màkka euh, seetaan la sama moromi gone yi seetaan dal léegi dana baax ne na kooku sama jur ba ma demee dégg ndënd mu ñu tëgg ma laaj la mu ñu ma ak ceet la ceetu diw ak diw na ma dem fa bëgg a déglu po ma fa am waaye ba ma àggee rek la ma yàlla xëpp ay nelaw damaa nelaw ba jant bi tàngoor jant bi moo ma yee dara xawma ko ci caaxaan yee ñu doon def nee na yoon boobu laa ko mas a ittewoo yàlla dox sama diggante loolu beneen yoon bi ñuy sàmmati jur gi maag kooku ma waxati ko lu mel ni dama ko waxoon ni ko damaa bëggoon nga xoolalaat ma ma dem màkka seetaan la ñuy def dal ko sama morom yëpp yi def nee na ma waaw ba ma dematee lu mel noonu dalaat ma damaa nelaw ba jant bi tàngooru jant bi moo ma yee nee ma xam ne loolu du sama cër kon mës a jaar ci lenn ci li gone yi daan jaar li gone yi mu nekkaloon ci mag ak dencam Xadija yonte bi mu demee ba tollu ci ñaar fukki at ak juróom la tukki woon dem Syrie kon tukki boobu mooy yoonu ñaareelam ci Syrie ndax bu jëkk ba bàyyam bu ndaw la loon tollaan ci fukki at ak ñaar yoonu ñaareel bi tollu na ci ñaar fukki at ak juróom demaat siri waaye la ko fa yóbbu mooy commerce moom doon commerce euh, te alal ji booba xadija jigéen ju ñuy wax xadija bintu Xuwaylid moo ko moom dafa doonoon commerçant bu amoon teraanga doonoon ko bari alal daan jël ay góor ay waxambaane yi dëkk Màkka mu leen di jël di leen jox marchandise ñuy dem di commerce ji euh, di ko euh, buñ indee bénéfice bi mu am cër buñ cay am yonente bi bokk ci ñi ñëw jël si marchandise ngir doxeek moom noonu yi boole ko ak benn jaamam bu ñuy wax Maysara Maysara moo doonoon surgëb Xadija moom euh, ñu ànd jaay jënd lañu war a jënd am it tono ju bare bari bénéfice bu bare bari fekk leen ca loole Maysara moom yi mu ko boole loolu gis na ci jikko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak i melokaanam euh, lu ko jaaxal bi mu ñëwee mu nettali ko soxna Xadija lim gis ci ay melokaan soxna Xadija daal di yéemu ci jikko yooyu ñu ko wax ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daan dégg bénéfice bu bari bi mu am ci commerce moom yonante bi doon commerce yi it mësu koo am mu am lu mu ci yëg loolu moo waral mu yable ci yonante bi di sàkku mu denc ko te ku ne xam na ni gone gu góor gu toll ci sàkku métier kee am na ñeent fukki at ci jamono booba waaye nag borom alal la woon boo xam ne ñëpp dañ ko doon wut si loolu xel sax ak xekk ma nanguwul mu ñëw di sàkku ci yow ni la kaay nu bokk ngay gàntal moo tax soxna Xadija bi mu yónnee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sàkku ci moom mu denc ko yonente bi nangul ko ko dal di wax bàyyam bu ndaw boobu di Abu Talib Abu moo yónnee ci mbokki Xadija ñu fasal ko yonente bi sallallahu alayhi wa euh, bokk na ci ay melokaanam jëkk nubuwa gi lépp ñuy waxtaane booba nubuwa gi ak seekul yàlla yónnee ko waaye day ay li ñuy wax tamhiid mu yàlla dana ko melal ay melokaan yoo xam ni danañ ci déggee yan bi nar a yanu ji ci kanam bi yonente bi tollee ci fanweeri at ak juróom la am taw bu mag a mag ñëw bi mu ñëwee Euh, xaw a mabbu mabbu miiru kaaba bi ñu ko mabbee waa Xuraysh ca saasi lañ daal di jóg dajaloo ne nañ ko tabaxaat waaye ba ñu koy tabax ba agsi ci war a teg euh, doj bi ñuy wax alxajarul aswad te mooy doj bi a tedd ci kaaba bi ñu ci teg ko dañ caa am ay jéyo ndax giir arab yi dañ daan def ay giir giir ne it day am lu ci boppam ñun nag gépp giir goo xam moo jël alxajarul aswad teg ko ci place bi rek day mel ni mooy kilifa xureesin gépp te loolu kenn du ko mën a bàyyee moroom ba ay xëccoo am ca ba ab xeex sax xaw fa am waaye am menn mag mu fa nekkoon xam naa wax naa mag mat naa ba ci dëkk menn mag mu fa nekkoon mu ñuy wax euh, Umayya Abu Umayya lañ koy wax Ibnul Mughira moo leen magoon mu ñëw ne bu leen juyoo léegi seet ku ngeen gërëm ab atem ku ngeen gërëm loo ab atem ngeen atteloo ko seen diggante ñu daal ni léegi ku jëkk a si rek moom la ñuy gërëm loo mu àtte na léegi ku jëkk a dugg si buntu bi daal ku fi jëkk a dugg si rek mooy ki ñuy àtte far yàlla mii dogal dogal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëkk a dugg si ba mu dugg see ñu ne waaw radina bii ñun ñëpp de kii d'accord nañ ko ndax mooy al amin xam nañ ko ci al amaana ñu d'accord ci loolu yi ñu wax ko la ñu doon xëccoo waaye ci xelam mu rafet moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu leen leen ambalaan ñu dem indi ambalaan bañ ko tegee mu jël xajarul aswad te loxoom bu tëdd ba teg ko ca kaw mbalaan daal di wax kilifa yi giiri Xuraysh ni ni leen na kenn ku ne jàpp ci ab coll ci mbalaan kenn ku ne jàpp ci aw cat ñu yëkkateendoo ko bañ demee ba taxaw fañ ko teg ci ci palaasam ci kaaba gi moom moo ko yëkkatiwaat ci loxom bu tëdd boobu teg ko ci palaasam nga xam ne atte boobu ba mu ko atte woo ba mu ko attee ñoom ñëpp d'accord nañ ci te boobu nubuwoo gi ak seegul mi ngi toll ci fanweeri atam ak juróom muy ay melokaan yoo xam ne yàlla daf ko jubloo junju ci yan bi mu ko nar yan ci kanam tuuti rek euh, la mu daan liggéeyee nag jëkk nubuwoo gi di ñëw yonente bi tuuti la donne woon ci ay waajuram ci mbiri ci alal alal ak bagaas tuuti la ci doon kon dafa màgg di ab jërim nga xam ni euh, bi mu tolloo ci fi fi mu war a liggéeyee sàkku dara dal amul benn sukkandikuwaay bu muy sukkandiku Euh, lu dul di sàmmal nit ñi ñu di ko fay kon sàmm la jëkk liggéey moom yonent bi sallallahu alayhi wax na ni yàlla mësta yónni benn yonent te du sàmm na ak jur ñu ni ko ndax yow sàmm nga ak yow yonent bi saxaaba yi wax ko loolu mun leen waaw daanaa ko sàmm ci sàmmal waa Màkka ci ay dog yi ci wurus yu ñu may jox bi mu demee ba doon mag nag la dugg ci am commerce mi ngi bokkoon société ak ku ñuy wax ak saib ibnu abi saib ñoom ñaar ñoo bokkoon société bu ñuy bokk di commerce naka noonu it yoroon na alali xadija yóbbu ko saam di ci liggéey ci ak pay gum seq moom mu di ko ko fay comme ni ñu ko waxee woon bu jëkk bi mu demee nag ba denc ko di liggéey ci alali xadija kon yaakaar naa danañ mën a taxaw foofu bu beneen ñu tàmbalee ci nubu gi tàmbalee ci nubuwa gi ndax lii ab tamxiit la jëkk nubuwa gi di ñëw ñu doxee ko noonu bu ko defee jamono bu ne rek euh, luñ ci mën a dolli ci ay jariñ ñu di ko ci dolli wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu